Tak lim di am ci guddi gi jamono yi 10h ci alarba bi le ndare ñu deg xibar bi ndaw yi ak sapeur pompier yi wuteli ngir rek fay safra sosé waye lolé da def xaj rek bi guddi gi xajé safar si da dekk wat danaka doom lepp akam jour sama taabal yi nga xam ne fi laay weere foofu la yàqu gi commencé di tàkk yàqu gi nag yàqule nañ lu bëri moom yàqule nañ lu bëree bëree bëree bëri suñu alal yi ñu amoon yëpp def ko fi lépp tàkk ba jeex dañu sotti woon ay camion kay totti ay camion xorom sir mi lépp pour préparer bu jën amee parce que instant bi jën amul mais loolu lépp yàqu na. ekewe sise di liggéey ci boobu le site ëpp ñaar fukki at ci ren ak metitam bët ya xonk mel ni ku jaaxle di biral ni lépp lu mu yaakaaroon dem na ci safara si. ba ma nekkee xale dama si ngumi woo ba samay doom a ngi sëy nga xam ne ëpp na loolu sama taraanga ju ma am rek si liggéey bii laa ko amee yàlla nag moo dogal nu yàqule nii suñuy matériel yëpp yàqu loolu la yàlla dogal ku nu dimbali rek daal nu bëgg man lool rek laa am lu may wax ku nu dimbali rek sapeur am na ñetti oto yoo xam ne moom la fanaanee di daw fee noonu mat nañu fanweeri nit ak sunu càmmiñ lu góor lii moo nuy dimbali fii mat nañu fanweeri nit. Ibrahima Gueye ñu ko wooyee Baye Fall momit am lu ko metti di xayma li mu yàqule. man mi sax ko ma ndax quatre heures et demie laa fi jógee demoon sama kër bi ma xëy see ci suba laa dal ci ñoom fekk lii yëpp doon doon doon doom mu yéem ma lool fii fag woon naa fi loo xam ne plus de trois cent mille yàqu na du mat du xorom du leneen du yu ma bagage ma fi dencoon fan am na bagage yoo xam ne maa ko fi dencoon ay bagage yu am waloor kii barke dem la sotti camion kii barke dem la sotti camion trente mille la ko jënde bari na kenn xamul ni mu toll wax dëgg bu mu toll yàqule nañu loo xam ne ni moo nu koo dabb mu doon à zéro la ñu waat zéro boobu nag dana métti lool jommi jomeet xamatuñu fu ñu jëm yile soxna moom mujjee des di tàllal seen i yoxoo kilifa yi ngir ñu wallu leen. jaaxle nañ torop li nu yàqule bari na parce que li ñu amoon yëpp dañ ko jëloon jaay ka teg ka di xaar jën ñëw far yàlla indi lii mënuñu ko sax calculer fi mu ne nii moom dañ siy woo ku nu mën a dimbali. kenn desul jokkul démb képp ku nekk ku góor ak songa nga ko démb.